dama yàgg wax rek ku la naan la focus focusul ndax ku focus dëgg dëgg dëgg du la wax focusal mu ngi mel ni kuy julli rek boo concentré aussi julli ji doo gis sax ku julliwul doo gis sax kuy saboté parce que concentration bu yàlla santaane ci julli boo ci nekkee tant que mun munoo xam ku doon jullee ku julliwul donc euh, loolu mooy focus il pare que am na benn ci euh, ñi doon accompagnateur ñi doon ànd ak le prophète sallallahu alayhi wa dafa amoon euh, dafa amoon góom ci tànk bi Euh, ci benn combat léegi nag gars yi bëggoon dagg tànk bi dañoo bàyyi ba muy julli concentration bu mu concentré wu maanaam focus bu mu focus ci julli bi ci lañu daggee tànk bi bu mu daa bu mu paree julli la daanu la doog a yëg sax ne dañoo dagg tànk bi donc pour wan ne loolu mooy focus Sénégal nag quatre-vingt-dix-neuf yi lay wax focus xamuñu luy focus parce que focus nit munu ci nekk di focus ba pare am leen lu lay divertir ça montre que focuso ku lay wax focusal focusul nee ko mu focus bés bu focusé dëgg dëgg dëgg du xam ni sax am na ko focusul donc euh, comme suñu genre gi on est super focus super focus moo tax kenn mënuñu divertir kenn mënuñu nax kenn ñu foo da ngay gis ay ay événement yuy jaar ba jàll du ma ci yéey du ma ci yàbbi parce que tout simplement xam naa bu depuis belle lurette que lii ay caaxaan la que depuis belle lurette ay manipulation la manipulation des masses te man nag focus gi ma focus nee naa leen damaa nawloo woo Ousmane Sonko bugguma suba mu xool ma dis may sëgg sama que ma bugg mu xullee ñaari bët mu xull ko ñaari bët mu ne ma moolaa ma ne ko woy Ousmane mu ne ma woy respect ma ne ko woy respect parce que sama nawle la quoi waruma yàpp waruma yàpp amul lan loo xam ni war naa ko mun a taxawee ba suba ma war a jàkkaarloo moom mooy yàpp waruma yàpp sama nawle la donc euh, bu mu dama ko def nawle nit na da ngay nawloo lu baax boo nawloo lu baax lu ndaw du la yóbbu bu boo new ne xob bu wow nag da ngay neex a nax ngelaw bu ñëw da lay yóbbaale te ngelaw bu lay dugal ci pax du la ci génne donc nañu lànk doon ay taxawee taxawaayu xob xob bu wow baaxul donc euh, ñu focus ci loolu moom mooy ñi nga xam ne dañ leen di divertir di leen gëmloo ay ay élection du am parce que tout simplement ay nangam ak nangam dama ne nañ focus waaw mbéjum kanam borom ma koy fajal boppam ku fi ñàkk fayda ba nekk fi peuple bu yàmbar ba ku la neex ñëw di dëpp ak dippi tey mu ne ay élection suba mu ne du am ginnaaw suba mu ne nañ ko amal ginnaawaat suba mu am ndi nekk ci digg campagne mu arrêté ko donc loolu yow boo ko nangulee sa bopp loolu yow la mais dama ne ñun suñu fulaak sañ fayda may nañ loo xam ne Macky Sall yabuñu sax ba fekk ñu ci digg campagne électorale Sénégal yëpp nekk ci campagne mu ne da koy arrêté def leneen wala def leneen loolu loolu nit mënu ko xalaat man ndax sama fulla ak sama fayda bi ma am man gëm naa ni nit yàbbu ma ba may defal loolu ba def loolu donc ku ko ku ko nangu rek loolu yow la neex donc euh, on est focus ñi ngi ci combat bi di waxaat encore suñu soldats yi nañu génn Dakar Dakar mokk na rumbax ku xool premier journée bi nga xam ne def nañ ko ci ci li nga xam ne moom mooy caravane bi wane na ni Dakar mokk na rumbax maa ngi woo ñi nga xam ne ñoom ñooy les dirigent de Pastef de la coalition de Diomaye génn leen Ndakaaru Amadou Ba bàyyi na leen fa bu yàgg Amadou Ba ma nga ca àll ba bàyyi na leen fa bu yàgg benn fan la fanaan ndakaaru benn guddi ndakaaru la Amadou Ba def depuis boobu dem na yoonam génn leen ndakaaru ndakaaru mokk na rumbax gars yi ñoo fa nekk yeewu nañ xam nañ nu mu demee ay boy town lañ xam nañ réalité bi région yi gën leen ndakaaru région ya moo moo mooy mooy pour cent électorat ba te région ya foofu la ñàkk yeewute ba fees dell fa la xonet ba nekk fa la méttit ba nekk xam nañ la région yi la fa nekk kekk wow koŋ la def génn leen ndakaaru bàyyi leen ndakaaru googu noonu ndakaaru day naxaate ndakaaru day naxaate ndakaaru pare nañ ko dugg leen ci àll bi Amadou Ba bàyyi na leen fa nag noonu la Macky Sall defoon gaaya ba ñu nekkee biir Dakar di xeex naan dañuy dem biir town ah Macky Sall nañ fa ñukk ne yàqaru naqaru yi dem dugg ci àll ba moo taxit moom moo mujjee ndam la génn leen ndakaaru génn leen yéen ñi nga xam ne yéen a yor caravane ba génn leen ndakaaru dem leen ci région yi maa ngi leen koy waxaat rek rek maa ngi leen koy wax bàyyi leen Dakar ki nga xam ne moom mooy Cheikh Bara Ndiaye macha allah mi ngi koy mokkal rumbax ndakaaru Ndiaye Cheikh Bara Ndiaye rek doy na fa sëkk ndakaaru Ndiaye maaraañas kese doy na fa sëkk ndakaaru Ndiaye xuree si caam rek doy na fa sëkk génn leen ndakaaru génn leen ndakaaru wax naa leen ko nag bi mooy énième fois ma ne bàyyi leen ndakaaru génn leen ndakaaru boo leen bañee yaakaar tas génn leen ndakaaru région yaa ngi fi metti loolu te saa yuñ fa demee dañu ñu fee gañe Kaffrine mënuñu fa gañee dem leen Kaffrine dem leen Kaffrine mënuñu fa gañe Ablaye Seydou Sow fa nekk di leen corrompre di leen fen di leen sàcc di leen jox ay weccet dem leen euh, euh, Kaffrine dem leen Kédougou dëkk yu nga xam ne mënuñu fa gañe communauté rurale yi nga xam ne mu gañewuñ fa département yi nga xam ne gañewuñ fa dem leen foofu dem leen Tambacounda Sidiki Kaba nga Tambacounda di dóor gaa yi ay camion wu euh, euh, moto Jakarta la fa wàcce camion yu boisson camion yu fruit ña ngi leen koy jox dem leen Tambacounda terrain ba c'est quasi inexistant kenn nekku fa dem leen Tambacounda le Sénégal des profondeurs dem leen ci àll ba dem leen Diourbel dem leen Kébémer dem leen Linguère dem leen fuuta dem leen Pekes dem leen Cilmaxa dem leen Kédougou et cetera dem leen Kaolack donc fi nga xam ne dañ leen fa yàgg a fi nga xam ne mënuñu fa am ndam boobu ba léegi mësuñu fa am ndam du deux mille dix neuf du deux mille vingt et un du deux mille vingt deux daw leen foofu dem leen ay Kolda fi nga xam ne bourse familiale wala leen ne jox ñu jàpp ni yàlla wàcc na dem leen Vélingara te ngeen génn ndakaaru googu Amadou Ba nee na leen fa ñukku ne yàq bu naqari dem na yoonam ma nga ca àll ba dem leen si bàyyi leen fa Cheikh ñoom ñoom ñoom Cheikh Omar Diagne macha allah danañ ko matal Dakaaru mokk na rumbax Dakaaru mokk na rumbax dem leen Louga dem leen saint loolu laa leen wax te waxaat naa leen ko nag maa ngi leen koy ñaax di leen wax ni xool leen Amadou Ba dem na yoonam bu yàgg dem na yoonam bu yàgg bàyyi leen fa quatre jours quatre jours caravane Ousmane Sonko mu Diomaye Faye bi ñu ngi Ndakaaru quatre jours bu mu commencé ba léegi quatre à cinq jours ñu ngi Ndakaaru di wëndaalu ak taxawaalu dama ne Cheikh Baara Ndiaye kese doy na Dakar mokkal na ko rumbax Dakar jeex na Dakar loo fa def perte temps la Cheikh Baara Ndiaye kese mokkal na dakaar Mara Niass kese mokkal na Dakar Cheikh euh, euh, Khoureyssi Thiam kese day mokkal Dakar rumbax donc dem leen ci région yi te ngeen génn Ndakaaru dem leen Sédhiou vide waa Sédhiou ne neen kenn nekk fa Tamba nee nañ gisuñu fa benn Pastef waa Kaffrine ne nañ gisuñu benn doomu Pastef leader dem leen ci région yi wax nañ leen ko te lu fi des bëreetul nag lu fi des bëreetul foofu laa yem ku fi taxawaalu nag ci dakaar gi nga xam ne mokk na rumbax di wër gaa yi di génn nga mokkal nañ ko mokkal nañ ko ah ñaan nañu ko yàlla mun nañ mujjee sax Dakar politique stratégie la politique stratégie la du affaire populisme génn ñaar Dakar wër Dakar ñu wër la ñaar nit nga ne eh, tegal naa kay nekk nekk ci internet bi di yéeg a yow wop wop wop wop non non non non politique du populisme politique c'est des réalités terrain c'est des réalités du terrain politique mooy wàcc fa wàcc maatam ak ak ak ak ak caravane bi wa dem ci région yi dem politique ay réalité la politique du populisme. dugg fenn benn quartier Dakar ka yi génn photo vidéo waaye bi kay ko dama ne Dakar yëpp xam ne ni mokk na te Dakar yorul électorat bi 60 pour cent région yi la dem leen ci région yi encore une fois dem leen ci région yi dem leen ci région yi dem leen ci région yi surtout nag département yoo xam dañu fa mus a gagné le monstre froid moom dugg na ci àll bi le monstre froid dugg na ci àll bi moom àll bay fay de àll bi mooy fay àll bi mooy fay kenn xewul Dakar waaye àll bi mooy fay Ablaye Sow du sowee nga Kaffrine boy boy boy Kolda bi Abdourahman Bour euh, euh, Abdourahman euh, kii Balde mi mi mi mi mi mi mi Kolda et cetera et cetera dem leen ci région yi dem leen ci région yi te ngeen bàyyi Dakar kooku Dakar day naxaate de ñoom ñooñu ñu fa nekk yeewu nañ bu yàgg xam nañ nu mu demee soxlawuñ sax nga nga leen di kii kii Dakar ay patriote kese fa ne ñoom lekk ñu bourse sociale bi xiifuñu xiif gu gu région yi xiif wala éveil de conscience bi Dakar ga éveil na télé yaa fa internet bi portable ya région yi ñoo am problème région yi ñoo le le véritable problème de l'électorat sénégalaise loolu loolu ci région yi la am ay ak ak département ay jululoog et cetera et nga xam ni dañ ñu fa mus a gañe Amadou Ba warul leen njëkk ci benn région Doura Balde mi ngi mi ngi mi mi ngi Kolda jamono ji et cetera et ñoom ñëpp a daw Sidiki Kaba nga Tamba ñoom ñëpp ñu ngi ci région ñun ñu ñuy wër Dakar rek quatre jours dafa ëpp bon beneen bi moom mooy euh, te gis naa ñëpp tamit génnati euh, di xaar Ousmane Sonko ma dambal jaañ lu mu wax c'est pas extraordinaire du dara euh, normalement dañ ne bu ñu bu ñu voté amnistie bi huit jours après euh, Macky Sall ci huitième jour bi la waroon signé après ñu libéré ñëpp ñi nga xam ni dañoo bénéficier amnistie bi donc tey la huit huitième jour mercredi bële lañ ko defoon mercredi bële lañ ko voté woon assemblée nationale donc tey lan tey la mercredi c'est tey le huitième jour <laughs> loolu kese la ma jam ma jam ma jaañ Macky Sall waxu ko dara dara gisu ko sax donc du xam-xam huit jours la ñu wax bu ñu voté amnistie bi assemblée nationale après huit jours décret boobu loolu dina yegg si ci Macky Sall Macky Sall signé ko ñu libéré ñëpp ñi nga xam dañoo bénéficier si amnistie bi kese donc du benn xam-xam promulgation <laughs> loi bi la du benn xam-xam amu ca donc loolu leen <laughs> Madiambal Macky Sall waxu ko gisul Macky Sall yëyul Macky Sall yëyul yaa bi ci nopp ba dafa calculer rek jox leen te noonu la war a demee noonu la war a demee du waxi Madiambal Diagne fenn rek lay def dafa duul ba ñuul bu leen ko fàtte Madiambal Diagne daa duul ba ñuul Macky Sall wax ko dara donc dafa calculer rek comme nu nga xoolee ne tey weer wi normalement bu feeñul tey feeñ suba <laughs> loolu kese la comme ni ngay taxee du xam-xam nu ngay xoolee ne weer bi bu feeñul tey feeñ suba nga toog xaar mu feeñ tey wala mu feeñ suba loolu mooy normal lool mooy normal mais Sénégal ñëpp xam nañ nii newul ñu ci dëkk bu normal donc Macky Sall ak ay humeur am lay génne waatee ci lay tëjaatee Macky Sall ay humeur am ci la tëjee Ousmane Sonko ci ay humeur am la koy bàyyi moo tax ma wax leen stratégie boobu ne leen noppi leen ci mel leen ni le désintéressement intéressé c'est une stratégie désintéressement intéressé mooy nga bëgg dara mel ni ku ko bëggut wala ngay xaar dara mel ni ku ko kese Macky Sall noonu nga koy naxee tant que mi ngi gis engouement bi ni ñuy xaaree waaju ni ñuy nangam nangam malgré bëgg na ko bàyyi mais mi ngi wiiri wiiri taxaw di xaar nangam nangam donc respecté wul loi minimum 4 jours maximum 8 jours war na ko def bu yàgg mais defu ko donc respecté wul loi donc Macky Sall bu dee xam nga ko dëgg dëgg dëgg dëgg da ngay def lu ñu naan désintéressement intéressé bëgg dara mel ni ku ko bëggut nekk ci ay jareet bu xoolee gauche xool droite xam ah gars kon kii de bu ma ko fi génnee sax du fi am mille personnes parce que gars yi li jëntiwuñ ko sax gars yi nag mu ne ko farax génne bu ko xase ba génne jeex na yaa moom nga jël jibile daw moom yenu ko dingoom yóbbu ko fu la neex yow yaa ko moom affaire bi stratégie kese la désintéressement intéressé absence présence loolu mooy wax ji damay mel ni comme moom